voilà bu ma jëlee carte bi dama ko def nii ma def nii. waaw dama jiw bi def nii. bii nii du ko dam nii. dàkk dàkk dàkk yow damp ngay wax. jàpp def nii bi tamit. Ah. damp la damp. ah damp. Ah, yow ni ngay dampe. waaw gis nga bambara yi bu xam ne kale bi dëgër na. doom bambara. Hmm. bu mais dem doom bu déggee. Uh-huh. ñee ñee ñee ñee.